الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
الله لا إله إلا الله
محمد صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko dafa am benn mbokk jullit bu doon laayo biir xeet wi ginnaaw ban ko laajee ne ko musiba yi nu dal tey yépp ana lan moo tax mu dal nu jafe-jafe yu jullit yi am yëpp lan moo tax ñu am ko problème yi lan moo tax mu tegu sunu kaw moom boroom xam-xam boobu bi mu koy tontu laaj yooyu ñu ko laaj mu ne juróom benn mbir kese la mu ngi mel ne rek waxtaan wi ñu war a def tey trois heures ci télévision boobu tudd RDV foofu laaj bi mooy mal mas'ul an axlaaq an fasadil axlaaq kan mooy responsable ci jikko yu yàqu yi loolu trois heures la waaye xutba bi mooy maasaatuna musiba yi dëkk sunu kaw tontu bu njëkk bu borom xam-xam bi tont mooy natazawaj wala nu hib dañuy denc ay soxna te philosophie bi tax ñuy denc soxna du leen lu dul yow yaa ngi denc te ki ngay denc bëggoo ko yaa ngi ànd ak nit bëggu la yéen ñaar yéen a ngi ànd bëggantewu leen mu ne natazawaj wala nu hibb dañuy takk te duñu bëgg dajale ay jabar rek te xam ngeen ne dafa am lu tax sunu borom subhanahu wa taala taxawaloon sëy wa min ayatihi an jaalakum jaala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma borom bi ne bokk na ci samay kéemtaan wa min ayatihi su ngeen bëggee xam man maay yàlla wala duma moom su ngeen bëggee xam man maay kan ci yéen kéemtaan yooyu bokk na ci ngeen gis man yàlla jaala lakum min anfusikum mu defal leen yéen ci seen bopp azwaajan ay soxna ñaar ñuy sëy benn aaya boobu dong doyoon na góor gi yor jabar walla jabar ji am jëkkër mu xam ne moom mi am jabar jabar ji boppam la soxna si xam ne kii may séyal sama bopp la lu tax min anfusikum ku góor ki ci ku jigi ku jigéen ki ci ku góor ki la bàyyeekoo est-ce que nit dina lor boppam tontu bi mooy déedéet kon waroo lor soxna si est-ce que nit dina lor boppam tontu bi mooy déedéet kon soxna si warul lor ku góor gi ndax ci moom la bàyyeekoo jaala lakum min anfusikum ci seen bopp kon ñaar ñiy sëy lan lañ bokk yàlla nee na ma weesu foofu wa jaala baynakum mawadda wa rahma ma def ci yéen ñaar ñii di sëy mbëggeel ak yërmande est-ce que loolu tey am na ci sunu kër yi mbëggeel dem na moo tax mu ne natazawaj wala nu hibb dañuy takk te bëgguñu ay intérêt tax bëri na jigéen bu dugg ci góor lu ko ci dugal intérêt alal ji bëri na jigéen bu dugg ci góor lu ko ci dugal alal bëri na góor bu dugg ci jigéen lu ko ci dugal mooy taar dafa rafet moo tax amatoo sago moo tax nga débloqué ay millions débloqué ay matériel perkalal dafa rafet parce que bi ñuy sëy yàlla rafetaay la waxoon bi yàlla di wax nañ tànn góor ñaar la wax bi muy wax nañ tànn jigéen mu wax ñeent iza raaytum man tardawna diinuhu wa xuluqu fa zawiju la su góor ñëwee ci yéen jikkoom baax na am na diine may leen ko ñaari kat ñaari ñaari critère la yàlla posé foofu ñaar ñaari mbir la yàlla posé mooy jikko ak diine ci jigéen mu wone ñeent yonent bi ne tunkihul mar'a li arba li maaliha wa li jamaliha wa li diiniha wa li nasabiha mu ne fazfar bi zaati diin taribat yadak nit dina takk jigéen parce que dafa rafet nit dina takk jigéen parce que dafa am alal nit dina takk jigéen parce que dafa am askan mu ne nit dina takk jigéen pour diine mu ne man yonent maa ngi leen di digal ngeen jël borom diine mu ne ku jël ku jël ku amul diine mu ne taribat ya daak jël nga sa loxo dóor ko ci ëkk jël nga sa loxo dóor ko ci miir ndax ku jël loxoom dóor ci miir da nga ko defaat tontu bi mooy déedéet ñaareelu tomb mu ne natakaasar wala nu rabbi dañuy jur ay doom muy bëri duñ leen yar duñ leen jàngal duñ leen formé doom yaa ngi tambaambalu ci mbedd yi xool leen koñ boo dem gaa yaa xale yaa ngi ci mbedd yi kër goo dugg centaine de gosses ñoo fa nekk amul yar amul jàngal amul waxtaan amul orienté natakaasar wala nu rabbi ndeke doom waroo ko jur nii rek di produire muy dem li benn borom xam-xam ne dafa am ñoo xam ne dañoo rëcc juddu et sa- seen rëcc seen juddu moo jotul mais dañoo rëcc juddu loolu nag waxin la waaw dafa am ñu rëcc juddu doomu aadama lu tax ñu ne la woon na nga am doom pour nga jàngal ko pour nga yar ko pour nga former ko yenent bi alayhi salaatu wasalaam dafa diviser doom jooju ñaata yoon nga koy yar mu ne rafiq tiflaka saban wa allimhu saban wa laibhu saban sept fois trois vingt et un ans mu nekk benn soldat islamique mu nekk benn borom xam-xamu islam te 21 ans la am loola tax ngeen gis ci dund yonent bi muy jël ay xale yu ndaw di leen jiital xale yu ndaw ñoom Usaama ibnu Zayd keroog ba yonent bi di leen di jiital Aboubacar mu ngi fi Omar mu ngi fi Ousmane mi ngi fi Ali yi mi ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi fi waaye yonent bi ne Usaama ana Usaama moo tax bi yonent génnee àdduna Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu wa ardaahu remplacé ko mu ne lu njëkk lu may def mooy unafis jaysu Usaama xare boobu yonent bi jiitaloon Usaama moom laay exécuté ba pare balaa may def leneen mbokk jullit yi yonent bi nee na jàngalal sa doom bu amee sept ans yar ko bu amee sept ans formé ko bu amee sept ans kooku bu amee ñaar fukki at ak benn bu imam tardé jàkka suñ ko nekkaay mu ñëw suñu amul ku sang néew bi mu mun ko sang suñu amul ku takk sëy bi mu takk ko lu ñu bëgg ci islam suñu indee kooku mu def ko c'est parce que jàngal nañ ko mais xool leen tey ne takaasar wala nu rabbi dañu bëri rek waaw jur kër yi ba mu fees del gars yi ne xasar ci mbedd yi waaye wala nu rabbi du ñu yar xoolal tey éducation islamique nu mu néewee lu néew ci ñun ñooy yar seen doom ci islam bal sax faaqidu shay laa yutihi ku amul doom maye ñëpp ci ñun dañuy jàmbat naan xale yi xale yi xale yi xale yi dëkk bi dëkk bi fekk xale yi defuñ dara dëkk bi defuñ dara nu ayibu zamana wal aybu fiina wa ma fi sama zamanina aybun siwaana dañuy sikkal jamono naan adduna bi baaxul jamono ji baaxul adduna bi lan la def jamono bi lan la def ñun ñëpp bi ñu juddoo fan la ñu fekk jant bi di fenke penku fan la ñu gis muy sawe sow asamaan boobu ba léegi ci suuf ci kaw la nekk suuf boobu ba léegi ci suuf la nekk ngelaw li mooy ñëw géej gi moo fi nekk garab yi la doomu aadama yi ñoo fi nekk lan moo changé ci adduna bi ñun ñëpp loolu lañ fi fekk mu ne moo tax du àdduna moo ayib nu ayibu zamana ñooy ayibal jamono waaye wal ayibu fii naa ñun ñii ñoo ayib wa ma fi zamanina ayibun siwaana kenn sikkalul jamono ku dul ñun yonent bi nee na na ngeen yar seen doom yi- doomu aadama dafa yar doomam imaam ali ne allimuhum wa addibuhum na ngeen leen jàngal yar leen waaye bal tey dañuy jur rek koo gis ci ñun ku ne am na téeméeri doom waaye benn doom jàngul benn doom yaruwul yar bi lu tax mu ne nañu yar yar mooy ñu yar programme bi yonent yi indi woon loolu mooy tax doomu aadama yaru loolu mooy tax doomu aadama nite doomu aadama buñ ko jàngalee doomu aadama buñ ko yaree ak façon yar buñ ko mun a yar wallahi buñ ko yarul yarul islaam doomu aadama boobu du baax parce que lii baaxal nit yàlla mu ngi ko def ci diineem bii tudd lislaam yàlla mu ngi ko def ci téeram bii tudd alquran yàlla mu ngi ko def benn programme barnaamij mu jox ko sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam pour doomu aadama mun a yaru kañ la yaru mooy doomu aadama bu xamee lan moo tax yàlla indi ko ci kaw suuf rek dafa yaru waaye doomu aadama bu fekkee dafa jàpp ne man sama dikk kaw suuf mooy laa naa lekk naa naan naa am fu ma dëkk naa am lu ma sol bu ma xiif bu ma mar bu ma feebar yii bu ma dalee naa am fu ma ko def doomu rab doomu rab noonu la mel bàyyi ma da ngay lekk rab di lekk ngay naan rab di naan ngay sëy muy sëy nga am foo dëkk mu am foo dëkk lan mooy sa tàqali lan moo la tàqaleeg rab mooy yar mooy jikko mooy nite kon borom xam-xam boobu nee na juróom benn yi moonu alak bi ci njëkk na tazawaj wala nu hibb dañuy takk te bëggunu ñaareel mooy na takaasar wala nu rabbi dañuy bëri te duñ yar ñetteel mooy nabni wala nataallam dañuy def te duñ jàng def rek te duñ jàng benn ci diine ji da ngay di julli waaye lu bari tey ci julli di boo leen nee lan mooy faratay julli lan mooy sunnaay julli lan mooy mustahab julli lan mooy manduub lan mooy makruux lan mooy xaraam ci lépp nag ci jàpp ci julli ci lépp dina am ñu tontu de waaye ñi dul tontu ñoo ëpp lu tax parce que duñu jàng alquran nekk téere boo xam ne 114 saar la aaya bu njëkk a wàcc ci yonent bi boobu yonent bi am na ñeen fukki at aaya yooyu lan lañ wax iqra jàngal téere bi nekk téere jàng ñun ñu nekk xeet wu war a jàng ndax sunu téere moo nu jàngloo iqra fii lu amrin la dafa la jox ndigal ne la defal jàngal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne innama bu istu mualliman yàlla daf maa yónni pour ma jàngale waaye du nu jàng te nab nii dañuy tabax te duñ jàng dañuy def te duñ jàng dara lan dul jàng rawatina nag mbiru diine jànguñu diine jànguñu àdduna loola tax gis nga tey àddina bi boo koy xool ñi geeg ñi nekk ci ginnaaw ci geen gi mooy ñooñu ñuy woowee ay jullit parce que jànguñu àdduna jànguñu diine waaw jànguñu benn waaye dafay tooñ surtout Afrique mu ne yàlla tabaraka wa taala dafa convoqué tubaab tubaab di dem daal di daje ku dëkk Asie ne ko foo jëm ne ko damay wuyu ji yàlla yàlla moo ma woo mu ne ma gunge la mu ne waaw ñoom ñaar ñuy dem ba caag ñu romb africain africain ne fu ngeen jëm ñu ne yàlla moo nu woo ne ma gunge leen ñu ne waaw ñu dem ba yegg ñoom ñett yàlla mu ne tubaab loo bëgg mu ne xam-xam ne jëlal mu ne ku dëkk Asie ki loo bëgg mu ne alal ne jëlal mu ne africain loo bëgg mu ne man dama leen gunge woon rek mais man dama leen gunge woon quoi baax na waaw gis ngeen pourtant tooñ bi nuru na dëgg de pourtant misaal bi dundu na de pourtant misaal bi waa ji joxe wallahi nuru na dëgg lan mooy suñu taxawaay ñun fecc ak way rek fecc ak way fecc ak way kese africain fecc ak way ñoo keree guitare yi ñoo keree ndënd yi ñoo keree jémbe yi gis nga sax bal jémbe yi fii lañ koy daggee yóbbu ko yóbbu ko Europe sabar yi fii lañ koy defaree yóbbu ko Europe mbokk yi nab ni wala nataallam bu nu bëggee defar aduna man arada dunya sayyiduna muhammad nee na fa alayhi bil ilmi wa man arada al axira mu ne fa alayhi bil ilmi wa man arada huma maan mu ne fa alayhi bil ilm wa man arada al ilm fa alayhi bil quran wa man arada al quran wa man arafa quran arafa rabba wa man arafa rabba daa ilayhi wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin yonent bi nee na ku bëgg àdduna damal nga uti xam-xam ku bëgg alaxira damal nga uti xam-xam ku bëgg ñaar yëpp mu ne demal nga uti xam-xam ñu ne ku bëgg xam-xam nag mu ne demal nga jàngi alquran demal nga jàngi alquran yow mi bëgg xam-xam mu ne ku xam alquran xam boroomam ku xam boroomam woo nit ñi jëme leen ci boroomam mu ne wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qaala innani min almuslimin mbokk yi boroom xam-xam bi nee na natazawaj wala nuhibbu dañuy takk te bëggunu nata kaasar wala nu rabbi dañuy bëri te duñu yar nab nii wala nataallam dañuy xam te duñu jàng xam-xam boo xam ne jëf joo xam ne amul xam-xam baaxul ndax lépp loo def dafa war a tegu ci xam-xam ala yaqin xaqul yaqin ilmul yaqin loolu julli daf ko war a xam ilmal yaqin li ngay def mu leer na ne lii may def nii la waaye di làmbatu nekk taxankatu guddi li ngay def xamoo ci dara loolu moo tax sunu diine bi mun tabaax loola tax du nu wax fu nu war a waxee du nu weddi su weddi jotee munuñu def lenn ci diine lu baax parce que xamuñ dañu nekk rek ñuy làmbatu te diine du mbirum làmbatu diine dañ koy jàng yonente alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla joxe alquran bal tey soo liiree hadis yim fi bàyyi kenn xamul nu mu toll kenn xamul hadis yi nuñ toll sayil buxaari ñaa- ñaata la sayil muslim abu daawud tirmisi nisaay ibnu maaja juróom benn yii rek daanaka am na ci ñoo xam ne mënuñu ko jeexal da ngay jàng ba sonn bàyyi waaw léegi nag ñun ñu fas yéene loolu yàlla indi loolu yonent bi bàyyil lu fi duñ ci xam dara naka la ñuy tabaxee sunu diine bu fekkee wàllu àdduna la ci wàllu xam-xamu àdduna xamuñ ci dara naka la ñuy tabaxee sunu àdduna mooy ñaar yëpp dañuy màbb dañuy làmbatu àdduna làmbatu diine ixwatal uma iman yi أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقطة الرابعة mu ne nu salli wala nattaqi ndeysaan dañuy julli te duñ ragal yàlla dañuy julli te duñ ragal yàlla maa ngi dégg démb ak tey yëpp benn émission ci rajo bi benn waaye bu doon jàngale benn internat moo sàcc internat ba yëpp dem ak téere yeeg rajo yeeg moket yeeg tout te mu ngi leen doon jàngal alxuraan la ilaha illa allah kooku lan la doon jàngale yow ngay jàngale alxuraan ngay jàngale ay xale alxuraan nga bàyyi ba tëdd nga buub internat ba dem ak moom mii kii est ce que alxuraan la doon jàngale loolu mooy nu salli wala nattaqi dañuy julli te julli yi amul lu muy jeexital ndeysaan inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar julli yàlla nee na julli day tere nit def lu bon képp kuy julli di def lu bon julli wuloo da ngay xool sa bopp su julli yi ngay julli lan la la tere di julli di tux di julli di kiris karas julli bënn nopp di julli am jug déedéet julli woo limaasa xoolal ndaw si bu mu bëggee njaaloo benn waaye nopp benn xale bu jigéen bëgg a njaaloo ak moom ñëw xale bu jigéen bi lànk ba sonn waa ji ne ko foog ñu tëdd mu ne ko waaw léegi lenn comme bañ nga moom nañ def lenn rek am na benn jàkk bu nekk fii soo fa jullee quarante prières nga ñëw loo bëgg ñu def ko mu ne fan ne ko boo jàddee koñ bii quarante julli rek soo ko fa jullee nga ñëw waa ji dem allahu akbar fekk fa ñoo xam ne seeni kàbbar seeni jàng seeni ruko seeni sujjóot beneen mbir la waa ji ba ñeen fukki yi matee fa la jaar ñibbi këram ndaw si toog ay at atum lëmm jàdd koñ rek gis ko ne waaw kii ju rek mu ne aawuzu billahi min ashaytani rajim kooku julli na inna salata tanha anil fahshaayi wal munkar du hasard yàlla di wax ci alquran fa waylun lil musallin xur wa ca safara yàlla nee na ñuy julli laa fay dugal ba léegi-léegi ci jumaa ji lañ nekk dañuy julli ba pare nga dégg ñu naan jàpp leen daal lii keroog am na benn cheikh boo xam ne fii la daan jullee fii gëj naa ko gis fii diggante bi mu wàcc oto dugg fii ci jumaa ji la ñu yóbbu portable am te bisu jumaa la bisu vendredi kooku yóbbu ko da doon julli si nu salli wala nattaqi dañuy julli te ragalun yàlla julli dafa am lu muy def ci jaamu yàlla dafa lay raxas bakkaar yi lay dindi léegi julli goo xam ne dafa lay yokkal bakkaar bal est-ce que julli nga moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na am na ñuy julli te julli gi da leen di rëbb am na ñuy julli julli gi di leen rëbb julli ba pare julli gi ne la dayyaaka allah kama dayyaatani yal na la yàlla sànq ni nga ma sànkee te julli nga ba pare nga pare malaaka yi jël ba julli gi laxas ko comme bal tengs daal la koy dóor sa digg ginnaaw ne la ni nga sànke julli gi yàlla na la yàlla sànke noonu ku mel noonu nag bu fekkee jàkk ci daal dana ko yóbbu bu fa fekkee rajo dina ko yóbbu bu fa fekkee moket dina ko yóbbu ku mu dajal ci mbedd mi dina yóbbu sa portable ku ko dénk mu yàq est-ce que- te soo waxee ñu ne la mu ngi julli nu salli wala nattaqi julli moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla yëpp bi ko yàlla di jox Seydina Muhammad fan la ko joxe ci kaw suuf amma julli daf ko yónne cortège u malaaka jibril jiite ko ñu dem ba asamaan yi jeex jibril ne yonent bi mënatumaa dem fii laa yem wa ma minna illa lahu maqamun maalum man mënatumaa dem fii la yonent bi daal di yéeg dem ci yàlla yàlla jox ko julli ah mu nekk jaamu yàlla bi gën a màgg ci jaamu yàlla yi mu nekk jaamu yàlla bi yàlla gën a bëgg mu nekk lu ñuy njëkk a laaj yowm alqiyama inna awalu ma yuxaasib bil abd min amalihi yowm alqiyama assalaa waaw moom la ñu njëkk a sànq tey moom mooy axiru wasiya wasaaha rasul sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala firaasi l mawt muy dénkaane gu mujj gu yonent mujjee dénkaane tëdd ci lalu dee di dénkaane naan assalaa wa ma malakat aymaanukum assalaa wa ma malakat aymaanukum ba kenn déggatul làmmiñ bi natakaas nu salli wala nattaqi juróomeel mu ne naamal wala nutuqin naamal wala nutuqin dañuy liggéey te li ñuy liggéey dara baaxu ci dara du ci rafet dara du baax dara sellul parce que lu tax ndax yàlla moo ko lalul ixlaas moo ko lalul même suñu julli yi da ngay dégg waaye booy nañ ko dóor mu daanu de imaam na nga gaaw ah parce que tey dañoo am ay rendez-vous quoi rak tak am na jàkka joo xam ne imaam bi danaan julli di jàng saar yu gudd waa jàkka ji dem polo- boole ji ko ak chef de quartier ñu réunion ci digg jàkk ji imaam da ngay guddal ñëpp nee nañ da ngay guddal jàkk ji ñëpp daw nañ imaam ragalal yàlla ngay gàttal mu ne waa insha allah imaam daal di jiite mu daal di jàng fatiha daal di jàng mudahamatan ne allahu akbar rukkoo musulma rek benn waaye ne ko gis nga du lii la ñuy wax du da nga mën a guddal torop mu ne ñe- mu ne benn aaya laa jàng benn ña- ma dagg ko ñu ne lu tax ngay jàng ñaar doo jàng benn maanaam kon nit ñi soo leen toppee sa diine ngay bàyyi soo toppee nit ñi sa diine ngay bàyyi dañ lay topp ngay yolomal waddu law tudhinu fa yudhinuun di la topp ngay yolomal sa diine di yolomal sa diine ba mujj gi yaa ngi ñoom yooy na yem mbokk yi li waa ji wax kenn mënu ci teggi dara naamal wala nutqin dara du rafet ci jaamu yàlla yi te islaam ñetti martaba la maratibu diin salaasa al islaam wal iman wal ihsaan islaam iman ihsaan lii mooy islaam lii mooy diine islaam cër yi ñooy liggéeyal yàlla shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah mooy benn cër yi ñoo koy def iqaami salaa mooy ñaar cër yi ñoo koy def itaa zaka mooy ñett cër yi ñoo koy def sawmu ramadan mooy ñeent cër yi ñoo koy def hajjil bayt mooy juróom cër yi ñoo koy def kon islaam cër yi la iman xol bi la juróom benni ponk xol bi kese la al imaanu billah al imaanu bil malaika al imaanu bir rusul al imaanu bil yawmil axir al imaanu bil kutub al imaanu bil qadr xayrihi wa sharrihi xol bi lépp moo tax yàlla ne rabbukum aalamu bi ma fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kaana lil awaabin fii la xol bi la moo koy liggéey juróom yooyu juróom benn yooyu mu des benn mooy lii lépp nag juróom yee ak juróom benn yi muy fukk ak benn soo koy def al ihsaan na rafet loo ciy def na rafet ñu ne yonent bi lan mooy martaba boobu mu ne an taabudu llaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak kenn ci ñun tey bu doon julli malakal mawti taxaw ci wetam ne ko boo paree rek dama la yóbbu nooy jullee julli googu mbokk yi ku nekk dama la ko laaj fi nga toog jublu penku ci sijaada bi nga toog ma ni boo doon julli ne allahu akbar malakal mawti taxaw sa kanam ne la waaw sa waay boo paree nag da nga yëg ne da nga dee dee nooy jullee ay waay ndeysaan ndaw jàng bu neex ndaw ruko ndaw toroxlu ndaw jooy ah looloo tax ñu ne sooy julli da nga mel noonu salli salaata mutawaddi julli googu lañ la wax jaamu yàlla gu mel noonu lañ la wax moo tax na rafet al ihsaan su fekkee ci koor la bu dee ci azaka la bu dee ci sarax la dugal sa loxo sax sa poos di ko joxe ñu ne na nga ko joxe joxe bu rafet mbokk jullit yi bi ci tegu mooy ci tomb yooyu mooy naqulu wala nasduq dañuy wax te li ñuy wax lu ci ëpp du dëgg ngi wax rek nag naqul wala nasduq dañuy wax te dëgguwun xoolal ñàkk dëggu gi nekk ci dëkk bi ñàkk dëggu triche gi nekk ci dëkk bi ak waraate gi ak rambaaj geeg jëw bi da ngay gis ku lay wax assalaamu alaykum wa wajhuhu wajhu abubakar lakin qalbuhu qalbu abu jahlin da ngay dajeeg ab julit mu ne la asalaamaaleykum wan la kanamu Aboubacar fekk xol bi xolu Abu Jahlin la soo ko wanee ginnaaw yauddu aleykumul anamil mu wàtte baaraamam kii kii dafa war a dee kii loolu xoolal nañ ko xool ci suñu dëkk bi mbokk yi li ñu dencalante ci soxor li ñu dencalante ci bon li ñu dencal ci kenn ku nekk ñun li nga dencal sa mbokki julit yi nga dëkkal say dëkkandoo say mbokk loolu fu ñu jëm ak moom naqulu wala nasduq te koo ci dajal bu lay nuyu ñaar loxo la la jox asalaamualeykum wan la kanam gu leer fekk du dëgg julli day dëgg iyaakum wa sidq fa inna sidq yahdi ila al birr yeneen tamit nee na maa ngi leen di dénk ngeen dëggu ndax dëggu day yóbbu nit ci baax kon soo dëggoo yàgg ci foo jëm ci baax mu ne wa maa yazaalu al abd yasduq wa yataharra sidq hatta yuktab inda allahi as-siddiq nit du deñ di nekk ci dëgg di taqoo dëgg ba yàlla subhanahu wa taala bind ko ci ñu dëgguñu Abu Bakr lan moo tax ñu tuddee ko as-siddiq parce que lépp lu mu wax yonent bi waxoon nee na dëgg la benn bis waa Màkka dañ ko doon natt ne ko yow tàmm nga luñ la wax nga ni Muhammad dëgg la luñ la wax rek nga ni dëgg la mu ne waaw waaw lu ngeen ma wax moo ko wax wala moo ko def dëgg la ñu ne ko kaay tey nag tey moom di nga ko simmil sàppo mu ne waaw mu ñëw taxaw ñu ne yonent bi nettalil sa bopp yow li nga def yonent bi ne waaw démb ci guddi jóge naa fii ci Makka dem Medina mun a war jóge Medine dem Baytil Maqdis ca Jérusalem Israël ñu ne Aboubacar wacca waxa kii démb ci guddi la wax de te ñoo moom ñoo reerandoo léegi moom nee na ci guddi gi dem na fi Madina dem baytil maqdis loo wax mu ne wallahi su fekkeon na wax na fu ëpp foofu sax ma gëm ko parce que moom daf cee yokk meeraaj xam nga yonent bi waxul meeraaj isra mooy jógee Makka dem Medine dem baytil maqdis loolu mooy isra meeraaj mooy jógee baytil maqdis dem kaw asamaan xoola yonent bi waxul loolu Aboubacar de bal dane man de jóge naa Makka dem baytil maqdis Aboubacar nee na wallahi soo waxoon ne dem nga fu raw foofu sax dëgg la wala moom jugal na ci ñaar yëpp mu ne yonte bi ne kii mooy siddiq kii mooy ku dëggu ki jullit dafay dëggu mbokk yi yonent bi xàmmekaay bu mu jox Aboubacar mooy dëggu hatta yàlla subhanahu wa taala moom dafa tagg boppam ci baatu dëgg hatta yonent yi yàlla da leen tagg na ñoom dañoo dëggu wa jaalna lahum lisaana sidqin yàlla nee na maa leen defal ñuy yor làmmiñ yoo xam ne dañoo dëggu tey ñun li rey sénégalais yi mooy ñàkk a dëggu nit mën na laa wax léegi dara waxal leneen waaw xoolal politicien bi ne diw dafa dama koo allergie diw dama koo allergie ca suba sa waajooju mu ne woon dama ko allergie waa ji woo ko jox ko poste journaliste yi wër ko ne ko waa yow yow kii nga ne woon bëggoo ko de da nga allergie mu ne allergie feebar la faju naa ko ñun ñëpp bu ñu meloon noonu ñii ne waa wax waxeet kañ lañu jëm fan lañu jëm te ñëpp ay jullit lañu mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala kon juróom benn mbir yi mooy masaatuna mooy sunuy musiba yi nu dal musiba yi nga xam ne sunu bëggee sunu xeet baax sunu xeet dem ci kanam mooy bu ñuy takk nanu bëgg bu ñu amee ay doom nañ leen yar bu nuy jàng nanu xam ba pare nanu xam doog a liggéey bu nuy julli nanu ragal yàlla su ñuy def lépp lu ñuy def nan ko rafetal suñuy wax ak suñuy jëf nanu dëgg juróom benn yii mooy li boroom xam-xam bi tontu woon ne mooy masatuna natazawaj wala nuhib natakaasar wala nurabbi nabni wala nataallam nusalli wala nattaqi naamal wala nutqin naqul wala nasduq اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من حزبك فان حزبك هم المفلحون واجعلنا من جندك فان جندك هم الغالبون واجعلنا من اوليائك فان اولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم mbokk yi bu ñu sëlmalee balaa ñuy dem ñu may ñu tuuti am na fi sunu benn mbokk jullit bu wàññeeku ñu war ko jullee yóbbu ko jébbal ko boroomam ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na ko yàlla tàbbal jannatu firdaws qumu ila salatikum yarhamukumullah